عنين فإبليس في بحر ما ينبع DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عنين فإبليس في بحر ما ينبع وسنة مصطفى البيداء تكفينا نطلع مصطفى البيداء تكفينا وسنة المصطفى البيداء bayda إله Santo. لك الأبواب وبي سلامي تعوس جوائز تخوى

رادي استرا ودي غيران ودي ولا استرا ودي غيران ولا استرا ودي غيران ودي ولا استرا ودي غيران ولا استرا ودي غيران

let's go mbooloo mi nañu maase jub taxaw ca kaw màggal xasida gi nañu maase jub taxaw ca kaw màggal xasida gi la aw kayfa yëpp waasul mi waaw waaw kullu tamila ak riman

طوبى لحبد النار بن صالح له طوبى لك جنبك من براورا بالأوخديات لعبد النور توبا صالح له توبا طوبى صدق بي طوبى لحبد النار بن صالح له طوبى محمد من أوخديات عبد الله سيدنا ku ko sopp danga texe mola si man li rasulillah sayyidina li rasulillah rasulillah mola si man li rasulillah sayyidina man ku ko bëgg danga dugg aljanna ku ko sopp محمد برسول الله سيدنا برسول الله سيدنا برسول الله الأنبياء والراو ألقاهم مهجمة جمة أنبياء والراو أمننا الله نور سماو الله نور يلا كمل الله نور سماو الله نور يلا مجنا الله نور سماو زمان الله نور زمان يلا كمل الله نور زمان خسيرة سوداء وخراء إن الخسيرة خسدامي سربي لنغول سني مير شيخ أحمد بامبا يونا لب بير مام يونا لب بير مام يا أيها أيها إنتي إسماي لنغول سني مير شيخ أحمد بامبا يونا لب بير مام أحمد بامبا Touba lay tagg ku jug taxaw yàlla boo tànk yu métti nan ñëpp jóg kenn sëñ Touba ni si diiri nan kenn sëñ Touba jóg leen borom Touba amul bu dendam amul la na ci mindam feeñ na ci mindam moo le ca kanam waxtal alaay amul amul ab dendam amul ab dendam feeñ ci millam feeñ ci millam maa ne ca kanam alaay amul ab dendam ana waa ana soppe see xatulaat borom daara borom belal tuuba amul ab dendam amul ab dendam feeñ ci millam feeñ ci millam maa ne ca Ahmadu Bamba feeñ na ci mbir moo ne moo jar a dëgmal moo jar a dëgmal ay ma yéen may na maam Thierno feeñ na ci biir may na Cheikh Madou Mbe may na sëñ Gaawaan may na Baye Fall Cheikh Bamba saare Dr. Cherga ay waay mbooloo mi Cheikh borom Touba yaa bokk na ñëpp mbaase ñu taxaw ca kaw màggal Cheikh Issa Dieng na ñëpp mbaase ñu taxaw ca kaw màggal Cheikh Issa borom Touba Cheikh yi nga seexal Cheikh yi nga seexal masuñoo jeexal masuñoo jeexal sa mbir Bamba jenn masuñoo jeexal Cheikh Jiri waa daan fële Babacar Thier gan tafsir bu si borom jenne Cheikh yi seexal Cheikh yi seexal masuñoo jeexal masuñoo seexal ana waa jenne ana soppay Cheikh sa jenn baayu Serigne Bara jenn maami Serigne Naar yi nga seexal. seex yi nga seexal. masuñoo jeexal. masuñoo jeexal. yow baaxal. sa mbira Bamba. seex yi nga seexal. baayu Serigne Bara Dieng. masuñoo jeexal. maami Serigne Naar Dieng. baaxal sa mbira Bamba. seex sa jenn seex yi nga seexal. seex yi nga seexal. masuñoo jeexal. seex yi nga seexal masuñoo jeexal sa mbir Bamba seex yi nga seexal masuñoo jeexal masuñoo jeexal masuñoo jeexal baaxal sam yoo bamba fal jagada bay ma am njaay fal sa tollu ay kawe na yaay waay yaay waay bamba Cheikh da bay ma am say njaay Cheikh Ibra Fall Fal jaga kawel nga baale teral njaayen leeral murid yi nooy faal yaay lamp Bamba Seex Ibra ana Baay Faal yi nag ñëpp jóg màggal Seex Ibra Faal ku bëgg Seex Ibra jóg taxaw ca kaw Seex Ibra lamp Baay Faal yi Baay Faal yi Baay Faal faal jaga yaaram leeral murid yi nooy faal yaay lamp Bamba Baay Faal leeral murid yi nooy faal Seex Ibra Faal yaay lamp Bamba leeral murid yi naa lamp Bamba jaay waal leeral muride Ibra Fall jaay lamp Bamba leeral muride la jaay lamp Bamba Seex Baay Faal leeral muride jaay lamp Bamba Sëñ Fallu moo sëñ kindin Alaaji Fallu ba def di di ana soppay baay bu ret bu ginde xamal Sëriñ Fallu Sëriñ Fallu soppel ka yàlla ñu ngi commencé di taxaw te foo ñu bàggal Sëriñ Fallu ak ñu ñu bàggal Sëriñ Fallu yàlla bàggal نهما سيخ فضل نهما سيخ فضل سيخ فضل الله وما سواخ أمنا ولو أمنا بإسم الله على جفر على جفر على جفن بسم الله لو مساوخ أمنا بإسم الله لو مساوخ أمنا أنا صبي على جفن مجتوبة لو مساوخ أمنا لو أمنا بإسم الله لو مساوخ أمنا على جفن بإسم الله آدت رسول الله جارة ليس fallu yeesatu a maam alaaji fallu tamb doy nga fi diine alaaji fallu diine laay sëñ fallu samb doy nga fi diine alaaji fallu dox dox tamb doy nga fi diine alaaji fallu diine laay saguru nga fi diine alaaji Fallu sax baramaana lay jaajëf ramadine jaajëf maam danga jëf Sidi Lamin Baara maana la jaajëf Baara Aminata Lo baay Seex Sidi Maxtaar